cité kër góor gi lañu ñu euh, dakkaloon dem beeg dikk bi dafa am lu ko waraloon li ko waraloon mooy euh, dafa amoon ku fa dëkk xam ngeen ko Ousmane Sonko daan woote ci euh, nit ñi génn xuloo xëccoo insurrection woote dox doxu ñaxtu ak yu demee noonu loo xam ne day andi trouble à l'ordre publique état nag dafa am ñaari mission yoo xam ne autorité administrative moo xam préfet gouverneur ba ñi nga xam ne moom la yiri police am na lu ñu leen jox mooy euh, li nga xam ne mooy mesure de prévention ndaxte état du bàyyi ba dara am rek mu jóg ne da ngay da ngay dakkal euh, ndàngam ndax dara nga arrêté ko déedéet bu fekkee da nga am ay preuve wala da nga gis loo xam ne mën na andi trouble à l'ordre public li nga xamante ne moom la la yoon may mooy nga dakkal ko li la koy won rek bés bu ne mooy xew-xew mën na fi am nga bëgg a jàdd à droite policier bi ne doo jàdd à droite te pourtant am nga liberté jàdd à wala jàdd à gauche wala nga bëgg a egg fenn ñu ne la fii nga yem wala match am ñu ne la doo egg ba ci parkingu Léopold Sédar Senghor te bu la neexee mënu nga fa àgg donc tant que risque bi bi nga am l' autorité mën na am sañ-sañu na la def l' autorité administrative nag mën nga jàpp ne gouverneur bi la préfet bi la sous préfet bi la police lay la police bi la commissaire de police ba ci agent de police bi nga xam ne moom nga dajal bëgg a ci biir koñ mu ne la déedéet fii mënoo fi jaar gaareel fële donc bu jafe-jafe amee te jafe-jafe yooyu am na ndaxte gisoon nañ koo xam ne saa yu xëyee na génn leen xale yi génn leen joxe leen seen bakkan def leen nii def leen naa ba ñu gis ne dëkk bi yëpp fu ci ne fu mu génnoon dina am ay yàq ay toj ay boutique yi jàmbur yu ñuy yàq ak tamit li nga xamante ne mooy ay bakkan yu rot loolu nag bu amee état dafa am wàllam wàllam mooy jëfe loo xam ne day dakkal loolu wala day fexe ba du am mooy prévention loolu nag loolu la état bi defoon bu ñu demee nag ba loolu amatul mois de juin ba mois de juillet gisatuñ loolu am li état war a def nag mooy yëkkati ko mu yëkkati nañ mesure boobu ndaxte nag am na ñu fa dëkk te tamit moom sa kër di dem ak di dëkk defoo dara euh, ñu naan la foo dëkk ak foo foo war a dem ak yooyu loolu du yoon mais nag bu fekkee dafa am lu ko justifier état da ko war a def comme amul lu ko justifié dégguñu kenn ku woote euh, marche trouble à l'ordre public insurrection donc loolu amul li ci des nag ni ngeen ko laajee léegi arrestation ak yu demee noonu loolu mbiru justice la comme ni ñu leen ko waxee procureur euh, juge mooy defar décision bu defee décision jox procureur li ci des ñoom ci wàllu justice ñoom ñoo ciy décider.